ginnaaw nag wax bari na ba kenn talatu dara léeg-léeg nit wax loo xam ne day yóbbu loxo gémmiñ te fekk du ab tip moo ko ci yóbbu ñu xam wax lu yéeme la lu mën a defar la waaye lu am njekkare la itam njekkare ndax suñu borom mi ngi waxoon ci alquran ni nit du wax benn baat benn nga xam ne baat ay xaraf moo koy mooy daje mu tudd baat waaye araf bu mu ci tudd boole ko moroom ja ñu ànd niru dara yàlla nee na mi ngi ko denc fi barab du réer du raaf du naax saa li mooy am na ñu booleel ñoo xam ne saa boo ko génnee dañ koy daal di capté mooy balaa dem fenn ñu jël ko daal ne daal la koy daal koy bindal ci sa téere bañ lay bindal su fekkee dellu nga gannaaw tuub ko yàlla mën na leen ne far leen su nee càll nag ba bis ba muy jàng téere boppam ñëpp yi dégg su boobaa nag loxo mën na dem gémmiñ wala sikkim gane ab dënn yàlla nañ ci yàlla musal maa sa min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid kon suñuy wax waxuñu di ko capté lii ci ay waxukaay waaye yàlla neen dañ koy bind boole ca sa naktubu maa qaalu ku mën a daal na léeg-léeg nag nit génn ci gémmiñam ay wax mu wër àdduna bépp ba mu koy wax jàppewu ko woon dara waaw daa toogoon fa mu toog rek wax ja xumb ba xumb rek walla sax mën na ko waajal waaye daal jàppewu ko dara te fekk fa yàlla moom dara rëy ci kanamam waaye wa huwa indallaahi aziim bu ko yàlla waxee moom ëpp na suñu nattukaay ci gré yi taquluuna bi bi afwaahikum maa laysa lakum bi ilmun wa taxsabuunahu hayyinan amul solo am na bunt yu mën a jaar génn ca lu ko ca mën a fekk te waxam joojee wa huwa indallaahi aziim ay nit a ngi nii yoo xam ne yàlla tëkku na leen ëllëg di leen waajalal mbugal mu metti te fekk sax jëfaguñ dara lu leen lu leen koy teg waaye dañoo wax yahud yi dañ ne woon yàlla moom loxoom yoxoom yi nga xam dañ ko def jëmm yoxo yim yor daal daa mel ne léeg-léeg dafa kuuñ kuuñ mooy loxo bu dagg ca conc la mënut a joxe yàlla nag ginnaw tuduna wahab tuddu basit tuddu lu nek ci tur yoyu melokan yoyu mune xana ñom la seen loxo doon ay kuñ lolu ñuy wax da la ko topante ak ñom ëlëk qalat alyahud yadullahi maghlula xullat aydihim wa lu'inu bi baqa waaye amna na xamne it daf ne dañ leen al janna te duñ fa genn buñ fa xasse ba dugg ba faaw duñ fa genn ba faaw khalidina fiha te du luñ jëf waaye luñ wax la ndax mooy ñi yàlla di wax ne buñ déggee dëgg buñ ay jullit de waaye buñ déggee dëgg moom nangu ko fa saasa ndax xàmme nañ dëgg ak caaxaan nañu koy nangoo seenub xol lay doon waaye mën nga ko xam ci seen jëmm ndax dangay gis seen bët yi taa ñu tàmbalee jooy bu ñu leen lu ngeen jooy lu ngeen di jooy ñu ne ñun ko dañoo dégg loo xam ne dëgg-dëgg bañ ko déggee fa saasa lañ ko nangu xam nañ lii moom du ay caaxaan kon boog yàlla na yàlla dimbale bañ bokk ci ñi nga xam ne saa buñ gisee dëgg nangu ko ñoom daal loolu la ñu wax yàlla ne fa athaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wax rek lañ def mooy ida samicu ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min addamci mimma arafu min alxaq dal ñaan yàlla mu bol leen ca ñi dégg dëgg nang ko rab yaquluuna rabbana amanna faktubna maa shahidin mo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy waxati ku bëgg wax na wëndeel aw làmmiñam ci gémmiñam ay yoon yoon bala mu ko génne bu bu fekkee la muy wax su ko waxee doon bëti ko waat di tuubal yàlla wala muy jéggalu nit ñi na wax suku ci loolu du fekk xam na loolu may lu baax waaye su ko wóoree ne lii moom day nëbbutu wax ko du génne xar kanamam wala day soppi baatam jëru ko na noppi man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri falyaqul xayran aw li yasmut ki nga xam ne it lu baax xàmmee na ko akub safaan ba wax ko it su ko waxee na noppi baat ba wax jotaat wax lu baax mu door a waxaat waaye bu mu dégg rek tabarkalla tabarkalla rek mu tàññaaña fu fu fii rek lay mujj yal nañu ci yàlla musal moo tax waaye gi ni ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama ma lu may def dem aljana ëllëg mu wóoru man yàlla ko joxañ su ma ko defee dem aljanna mu ne ko téel kii daal di laal làmmiñam mu tedd sallallahu alayhi wa ne ko téel kii rek del noppi del noppi rek ba waree wax te munta ñàkk nga wax lu baax lu yem yam ca dal ko ne xanaa xamoo ne am na ëllëg ñoo xam ne dañuy sëgg ca sawar di cof mel ni di dëtëm di dëtëm ca sawar dëtëm mooy di naan di nit nit kuy naan te jëfandikoowut ay yoxoom lu may dëpp ci palaat bi xanaa xamoo ne ëllëg dana am ñuy dëtëm ëllëg di cofaatu sawara te la leen ko yóbbee mooy seen làmmiñ yaa leen ko yóbbee lu ñu waxoon ci seeni làmmiñ eh, kon loolu liñ ci bëgg a junj mooy ne ëllëg yàlla day fay cër yépp bay fay aada làmmiñ sax ba di ko dësamloo ci sawara mu tàng jër te ku ne xam ne làmmiñ ku naan lu tàng sax bu ko laalee muy bëgg a tuskare waxuma laa sawara ëllëg nag yàlla ci yàlla moo tax yonte sallallahu alayhi wa sallam nit ki lum ji rek moom lay saxal su jiyee ci àdduna li mu fi bàyyi lépp wax ju baax la su ëllëgee buy jàng day waneew moom ci boppam ay soppeem yépp di waneewu nan kee suñu waay waaye su jiyee ci làmmiñam leneen it su ëllëgee suy wax gaa yi ko xamul yépp dañuy sëgg yàlla na nu ci yàlla musal moo ne tudd naa làmmiñ ci lu gàtt ci lu bare bare bare bare bare waye ku tudd lamiñ mënut a dem baye fa ay yoxo yi nga xamne ñom ñep ñëpp ñoo bokk ni ci jëm ndax bare na lu ñuy wax lo xamne dañ koy bind ki koy wax da ko jàng ci bind motax bind luy dal làmmiñ ëllëg du dem baye ko mom yoxo lu doon bind liko ko waral mooy alxattu tabqa zamanan baada katibihi wa saaxibu alxatti تحت الأرض مدفون بند من في دف أي أبدير نخبرنا أي تيري ني خورني ديكو لير ولا ني ديكو تيرل كاكو بيندون بام في جيغ لاغي اوبو نيا تيمري ات ت بند ماغي في دي وي ني نان ديو نانا با فيم نيك ني دي نات لي تيو لام لام بيندون موتاخ ماغ نيغا خامي دنجو خامون dañoo ragaloon a bind lool mën a sa jël misaal ñaar ñuñ xam ñu jege am na ku ñuy wax maam Cerno Birahim kenn xamul ñaata kaang la jàngal ak ñaata fóore yi kaang yi ak sëñ Abdourahmane Lo ak maam Mor Diallo ñooñu kenn xamul ñaata fóore lañ jàng ñaata kaang mooy mooy ku mokkal alxuraan ak ñaata fóore yi mooy ku jàng xam-xam ba ne ar bu ma ci tuddee sëriñ Mouhamadul Moustapha tudd ci sëriñ Fallilou Mbakke ak seeni bokk dana doy sëkk ci ne ñii kon kenn mënu leen a tuumaal ne xamuñu woon te maam no su fekkee am na ñu mas a gis mbindamit bu matee juróomi bayit ëpp ko te jàngal na mbooloo moo xam ne ay waykat lañu di ay bindikat waaye lañ koy wax xalaat ba mu lii ba mu jàngee la ak xatu tabxa zaman al baxdakaati bi wasaay bul xatada addi madfun la nekkoon am na yan bu ci nekk bu diis boo xam ne dañ koy layoog jamono ëllëg moo ne Mamor Jaare it moom ci ñuy sëñu sëñ lu mbakke ci la bokk sëñ Abdourahmaan Lo moo leen bokk jàngal alxuraan moom ñépp kon seenug man alxuraan ak seenug mën a bind kenn werante wu ndax gisees na seen i mbind waaye texul ña leen doon dànkal ma ak sëñ Abdourahman loo ku gis seen mbind it néew na waaye yan boobu lañ doon xalaat moo tax tëb di bind a waajal ndax kat lu aw làmmeñ tudd bu fekkee ci mbind la ko jànke lu mu ca am moo borom mbind ma duñ ko kenn dem bàyyi sama morom te mbind mën na fee gën a yàgg ndax alxuraan karim jii ñuy jàng te àdduna bépp nuróole ko bu ñu ko bindutoon muy ay nett yi mënees na koo dolli mënees koo wàññi waaye ba yàlla nammee mu des bañ fekk ko fi ñun ñu ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa lu ëpp ñett junni at ak ñetti téeméer yu teg mbind moo ko fi bàyyi ñooñu nag seen mbind barkeel na moo tax yàlla new yonent bi sallallahu alayhi wa bul jéem a bind de ndax soo bindee rek des na ci baat kon kuy bañ a bind ñu teg ca baat bul bind wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxutuhu bi yaminika idan la rtaba almubtilun kon boog wax ak bind ci ay yoxoo koy def bind ay yoxoo koy def wax làmmiñ a koy def fépp fu làmmiñ dugg ëllëg bu fekkee mbind la jàngoon des na woo borom mbind ma ne ko ana la nga bindoon moo tax mu mate tey lool mbind sax mën naa dem foofu làmmiñ du fa àgg ndax mën ngaa wax ci làmmiñ woo xam ne ñu bari duñ ko dégg waaye mën ngaa bind ci ci làmmiñ woo xam ne fu mu dem ñu bare bare bari mën koo jàng ndax ci jamono yàggut yi rek am na benn nguur gu ñu daan wax ne jant du sow benn yoon ci nguur gi maanaam saa bu sooyee fi rek fenk na feneen te lépp diw ñoom ñoo ko yilif muy Angleterre nee nañ li Angleterre yilif si ko adduna bi jant du fa sow benn yoon loolu mooy yaatugum yaatu ci li ko tàmbalee ba sow maanaam fi jant bi so sooyee fii rek ci réew mii nga xam ne anglais la ñuy làkk fenk na feneen foo xam ne anglais la ñuy làkk jant bi du tiim fenn fu ñu làkk anglais waaye nag kon ku kuy bind si anglais na xam ne mën na fee jóge téeméeri at ñetti téeméeri at junni at ñeneen bi jël naan diw ma wax lii te kat bokk yi bind ak wax ci làmmiñ lu ci nekk ci xol lay jóge ak pas-pas nit ki mees naa xamee pas-pasam ci ay wax waaye ñu ngi koy gën a xame nag ci mbindam kon bokk gannaaw wax bari na fan yi wax bari na ci làmmiñ bari ci mbind ñii bind nañ ko nañ ko waaj ñi waxoon nañ tuub ñi waxagut nañ ne tekk bu fekkee mënuñoo ñàkk wax nañ dem jàngi ba xam la ñuy wax lu mu doon loo xam ne ku koy weddi weddi moom daa yomb weddi moom yomb na lool waaye ku koy weddi teg fa dara jafe mu soog a wax lu yam bàyyi waaye nit ki su bëggee wax ci làmmiñam loo xam ne weesu na jiitu na bokk ak ganeem àdduna te munta teg loxo ci ku fekke woon na ne teg newaat teg bala moo wax waxuma laa muy bind ñi di ko jàngi feneen ëllëg kon waroom xam-xam yi nee nañ wax bu munta ñàkk nañ ko tënk ci ñeent rek bu dee ab jullit la su nekkut di julli nay tudd yàlla su ca jógee tudd yàlla mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak yi koy wóotu fi barab jang jàng alquran dañoo lim lim waaye mën nañoo ànd muy loolu làmmiñ la koy wax làmmiñ mooy tudd yàlla mooy jàng alxuraan ñetteel ba mooy la muy wax na doon dem di laaj lu mu xamul ku ko xam ku koo xam ne muy wax la muy wax amu ca dara si njëriñ xew léegi nekk lu ko ca yàlla rek a tax muy wax wax la sidna Abu Bakri Siddiq waxoon bi ñu koy laaj ci alxuraan bi ñu koy dajale mu ne leen daal man damay waat giñ teg bala ma wax suma ma ci wax lu ma xamul daal danaa génn suufu yàlla si ak asamaan si ma tiim danaa génn suufam si moom wuti fenn fu may dox fu dul suufam si danaa wuti seen asamaan su tiim fu asamaan borom fu mu koy jële eh, kooku ba muy wax wuti ca dara dara nekk lu ko ca farfar la wut laq laq wut bokk yi nag waxe léegi nit ñi xamatuñ bëgg ak bañ xàmmee wuñ ko waaye farfar la lañ xam kon ñetteel ba mooy din di laaj ngir bëgg xam ci ku xam koo xam ne day waxtu yàlla tax euh, ñeenteel ba noppi wax la di noppi ne cell wax la ndax fi mu ne buñ ne ndax ma teg ko fii nga ne cell waaw la tekki boo dag dagalee bopp déedéet la tekki li lay xamal ne yàlla moo bind te lu mu wax dana ko dana ko def te man na ko ni mu wuteele bindee fi ñun ci sunum réew bari na lool boo koy bañ da ngay jëmale sa bopp ndeyjoor ak càmmoñ nii ñu ne déedéet la wax donte wax ko ci làmmiñam su dee waaw mu jege ko kaw jëme suuf am na ñoo xam ne mooy safaan bi am na ñoo xam ne su dee wax ak ñoom suñ bañee dañuy jege ko jëm suuf ne fekk asamaan ci fa mu nekkoon suuf na ci fi mu nekk du ma ko mës am na ñu dégg gannaaw moo tax gannaaw tere wuñ ko wax bu wax bu mu génn ñeenti yooyu nay tudd yàlla wala mu jàng alxuraan wala muy laaj xam-xam boo xam ne kam koy laaj xam na ko te bu koy ci am benn lu ko ca nekkal lu teew wala ñeenteel ba mu bañ wax ndax noppi ci bañ a wax la bokk digle wu ku noppi rek wéy dégg ko rek nekkoon naa noppi bañ a waxati ci dara déedéet waaye kuy waxit nay wax lu baax rek loo xam ne njariñam day tàmbalee adduna jëm àllaaxira waaye suy nopp yi muy nopp ci loo xam ne njariñam daa tàmbalee adduna ab lor loram daa tàmbalee adduna jëm àllaaxira yàlla na yàlla musal ci luy jëm àllaaxira ëllëg te du lu baax fi mu koy jeexale mooy waroom xam-xam yi nee nañ li tax loxo ak làmmiñ gën a yéeme ci cër yi nit jor nga xam ne lii ci lay waxe ab toj toj lii ci lay binde xar-xar doj bu dul farate ba faw nee nañ cër yépp yi nekk ci nit bu ñu xëyee danañ ne làmmiñ teeyal ne yoxo teeyal ndax yoxo moom ak làmmiñ moom bari na ku ne fi barab ku tëj ko te daa wax walla mu jël ci loxoo te fekk sax demagul àllaaxira waaye mi ngi àdduna moo tax saa bu cër yi xëyee danañ ko ne tee ngaa ragal yàlla ci ñun ñi nga xam ne da ngay ñuy yóbbaale te suñu yoon nekku ci fu ngeen dugg ñu dugg fa dee leen tey yow làmmiñ bala ngaa wax wëndeelul juróom yaar yoon ba far toqi bàyyi ndax yàlla mi la sàkk xam na li nekk ci yow ci njëkkare ndax ci gémmiñ la ko dugal tëj ko ak i tuñ sàkket ko ak i gëñ fanweeri bëñ ak yaar yi nit di am dellu ko takkaat ku tàllal aw làmmiñam jëme ko kaw dana gis lu mel ni ak tàllal lu ko tiim lu ko téye mu mel daal jëmee ko jëm suuf mu ne ko gannaaw ay tuñu ko séq nga xam ne bu ñebee doo ko gis ay gëñ waraat ko fanweer ak yaar moo xam lim bi lim si jublu delu ko takkat ak càlla la bu jige ci kaw ci suufa suuf japp ci làmmiñ nga xari beugay juk yenn amna yan fu muy yàpp ñu ne ko te nga ragal yalla wonel ci bir geñ yi ay yoon yoon bu bu bu ngam mënut nga def ko fuk yoon ak yent muy yaara juroom ñaar xana da nga tay toqi lu ko moy rek da nga ñu indil musibah da ñu duggal fofu duñ mën a génn te yaa ngi fa duggal yow kon ragal yàlla si ñun lu ko may dañ ko toppante yow ëllëg daan ne yoxo yow yi ngay jël te kenn joxu la ko it léeg-léeg nga yóbbeenu fitna ndax léeg-léeg ñu ànd ak dugg foo xam ne ci moom lañ fa bañ a dugg ba faw ndax fa dugg ñu dugg fa kon ragal yàlla si ñun bala nga ko layoo ñun ëllëg na nag bind bokk yi léeg-léeg ñu nit si ñeneen nañ ray diw signature am baa ko rey ndax kenn du ko wet te fekk mënoon nañ koo bañ léeg-léeg mooy nañ ko te juróom-benn fukki at bind ci loxoom bind loxo mooy bind ñu tëj ko juróom-benn fukki at te moo ne mën naa am mënoon nañ ko bañ a tëj léegi mu ne mu bind na dañ génne kii te fekk kooko dañ ko waroon a rey wala ñu tëj ko ñetti téeméeri at kon bokk mbokk yi suñuy yoxo ak suñu làmmiñ yàlla daf ne ko dénk di ñu ci def loolu baax di ñu ci bind loolu baax di ñu ci wax loolu baax di ñu ci gindiloo aw nit gindi xam ne ñi koy nett leen te mën nañ koo yokk mën nañ koo wàññi te yàlla doo nga tax ngay def nga bind bàyyi fi ñuy ñëw ëllëg ni ko euh, sëñ bi mag bi defe nga xam ne téere boobu lenn ci ay doom dajale ku ne war na ko wuti dàng ko ñu ngi ko tudde diiwaanul uluum ad-diiniya loolu bu ko bindutoon muy wax kese ak wax ni mën a tasaaroo ak kenn ku ne la mu ko bëgg a jëfandikoo kenn ku ne dana ko nettalee lu nekk waaye ba mu demee ba xam ne yàlla la dong nga tax muy def yàlla la dénk boppam yàlla dénk ak njabootam daa bind lu nekk mu bind ko nga xam ne téere boobu moom ku ko sëralu ba àggal te dégg ko da nga raw ñu baree bari de ku kenn raw de amut waaye yow mën ngaa raw ñu bari te boo ko jëfee da gën ñu baat yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musul ñu ci suñuy làmmiñ te musul ñu ci suñuy yox te dimbali nu ba suñuy làmmiñ bañ ñoo boole sa ñuy dëtam ëllëg sa wàq waye nak bokk yi kuy de tamit daa am numuy muy ay yoxom di kuy de tam day tek ay yoxom mel ni kuy sujjóot di julli nga xamne yoxo yi ak nopp yi ñoy tolloo hazo man ka bay ka buy buy buy tax buy takbir al ihram kabar arma waye bu sujjóot it non lañ ko non lañ ko bëgge kon buy de tam na xamne loxoy da ko wuté di de tam wax yàlla mu ci yàlla musal yaxfirullahu lana wa lakum wa li muslimina amin